mbokk yi da leen ak jàmm nappkat Soumbédioune yi nekk si njàqare ginnaaw ñett seen ñoñ ñu réer mër si géej gi mënuñu leen teg bët ñetti fan a ngi nii yenn kaay bi di Vox Populi xëyee ko naan lu dalee alarba ba timis di waa jot ba léegi nag la ñoom ñetti mool yooyu duggoon si géej ga ngir nappi waaye ba nii seeni ñooñ mu ñu leen teg bët gaal ga ñu doon nappee ak matériel ba ñu yoroon nag gis nañu ko waaye ñoom ba léegi ñu ngi leen di wër gisuñu leen des ci xët wu njëkk Vox Populi ak accident bi nga xam ne mu ngi ñu koy xibaar naan Pape Alé Niang di journaliste def na ko niki démb nag ci corniche bu Ndakaaru moom oto Pape Alé Niang moo daw ba mbëkk beneen woto boo xam ne moo nekkoon ci corniche bi woto ya yàqu nañu waaye yàlla def na ci jàmm kenn gaañoowu ci buñ sukkandikoo ci yéenekaay bi moom Pape Alé Niang mujjee central bu Ndakaaru yéenekaay bi du l'Observateur des boobu lay xibaar naan scandale dëgg kay moo am si boobu l'accident ndaxte dafay mel ni journaliste bi di Pape dañ koo jiñ ne da doon dawal te ànd ak sagoom ñi ñu jiñoon ne dañ doon def trafic de visa la yéenekaay bi di Les Échos xëy ginnaaw bi nga xam ne joxoñoon nañ ci baaraamu tuuma ji jaak Diouf ak ay naataangoom yéenekaay bi nag mbir mi xëy ëlëm ko mu sampam laaj naan boobu léegi nag gisuñu kenn ko xam ne moom moo looru si góoglee waral maanaam amul partie civile te gendarmerie wax na ne teg nañu loxo yooyu les faux visa mu ngi naan bës yéen kaay bi di Vox Populi dafay mel ni nag loolee la ñu nattal réewum Sénégal bëgguñ ñu wees ko benn yoon mel ni FMI décision bi nga xam ne jël na ko amul lenn loo xam te ni bii dina baax ci projet yi nga xam ni président Macky Sall nal na ko moom président Macky Sall décision bi nga xam ne nag jël na ko niki démb dakkal jënd woto yi nga xam ne moo am si administration bi yéen kaay bi di l'observateur des na si ba léegi nag ak waxtaan woo xam ne séq na ko ak seen mi nga xam ne moo di directeur matériel ak transit si administration bu Sénégal mu ngi naan nag juróomi milliards suñu koppar la ñuy jëfandikoo at mu jot si réparer ay woto maanaam entretien libération moom gis na si ARTP moom fiesta dëgg moo fa am ak looxóor dëgg si woto yooyu ndaxte ñaari 4-4 bu ñu koy xayma dina toll si 147 millions 700 mille francs suñuy koppar DGP yi tamit ñoom it jënd nañu ñaari woto yoo xam ne toll nañ ci si 108 million mel ni ay koppar yoo xam ne dañ ko doon pasar pasare tax njiiti réew mi président Macky Sall daal di dakkal loole président Macky Sall teg na xeer wu njëkku nag stade du Sénégal bi nga xam ne war nañ ko amal foofu ci diwaanu Diamniadio enquête yéen kay xëyee mbir moomu nag naan Macky Sall jamono ji nga xamante ni bii mu ngi teg boobulee lestaat nag nga xam ne si la ñu war a amal JOJ 2022 dafa mel ni nag mu ngay xaar ay médailles mu ngay soññu gars yi nag naan nañu wut ay athlètes kat yu taqe yoo xamante ni bii dina tax réewum Sénégal mën a am ay médailles si googule JOJ stade boo xamante ni bii dina am lu toll si juróom fukki junniy toogu war a pare fii ak fukki weer ak juróom-ñaar yéenekaay bi naan président Macky Sall kay dafa bëgg sax yaatal mbir mi ndaxte bëgg naa organiser Coupe d'Afrique des Nations fii ak ñeenti at ci réewum Sénégal Le Soleil yéenekaay naan infrastructure bu moderne la boo xam ne bii dëppoo naag normes yi nga xam ne moom la FIFA joxe ngir ñu tabax ab stade jubluwaay gi nag di organiser Coupe d'Afrique fii ak ñeenti at. Grand Place xëy natt boobu le stade nga xam ne teg nañu xeer wu njëkk nag foofu ci diwaanu Diamniadio dafay mel nag Spartak bu Moscou la ñu yanu indi fii ci Diamniadio koppar yi ciy dugal den toll ci téeméer ak junniy milliards. juróom fukki yi toogu loge présidentielle dina fa am dina am VIP am turbine presse boo xam ne dina toll si junni ak juróomi téeméeri place ak ñeen fukki poste de commentateur fii ak fukki weer ak juróom-ñaar dinañu mën a daloo boobule stade. laas yéenekaay moom folklore dëgg la gis si pose première pierre boobu jàpp na xumbeel goo xamante ni bii daanaka dañ ko teg si dayoo boo xam ne yëggu fa. mel ni république bi yëpp la ñu mobiliser ngir mën a fuural président Macky Sall jox dig daje entrepreneur bi ñaar fukki fan ci weeru août atum 2021 ngir daloo boobu le stade yéenekaay bi di stade moom mu xëyee ñi nga xam ne ñoo di gayndee Sénégal yi ñi nga xam te bii jàpp na ne ñoom ci boppam nag ñoo ŋànk équipe nationale bi jamono ji nag mel ni dafa nekk ci njàqare bu baax a baax ginnaaw bi nga xam te ni bii ñii ñu ngi ci gaañu gaañu ñii daanaka ñu ngi doog di génn gaañu gaañu diggante Krépin Diatta Kalidou Koulibaly Idrissa Gana Gueye ak Ismaïla Sarr te xelam jëm ci match bi war a dox diggante réewum Sénégal ak Guinée Bissau mu naan naka lañ ci war a mën a demee jërë ngeen jëf mbokk yi di daje ba ëllëg incha allah.